dama fi dikkoon tey ci ndigalu président de la république Macky Sall ñëw xool si xew-xew bu tiis bi nga xam ne am na fi alxames ci guddi diggante alxames ak ajjuma muy marché zinc bi ñëpp xam ci Pikine muy marché bu yàgg marché boo xamante ne cosaan la fi euh, am euh, lakk bu fi am lakk bi nag li mu yóbbu ci ay cantine defe naa ëpp na téeméer ak fukk ak ñaar ak li mu yóbbu ci ay table kenn mënu ko wax bu dul woon njàmbarte ak xarañtewu sapeur pompier yi ñu sant leen bu baax ndaxte ñëw nañ fi ci bu ni mu gën a gaawee waaye ñëw nañ fi tamit ak fukki oto ak ñett yoo xamante ne dañu équipé ñëw nañ fi ak xarañte ak efficacité bu dul woon ñoom